fitna fitna jooju ay bakkan ci des te xol yi giifagu ñu naqar yu wàccegul la tribune ñu du loole rek la joxe ne ay raison yi tax mu tere gi nee na dañoo toll ci wattaayu tabaski dëkk bi laajul ay rassemblement bàyyi manifestation ñoom ñi bëggoon a rassemblement ak manifestation di waa F24 la tribune nee nañu nee nañ dégg nañu li préfet bi wax donte yeeyu leen yanuwul maanaa ci seen gis-gis ndaje mi ñu namoon tey ji ci àjuma ji ca place ko teg ci suuf waaye seen koy def le quotidien nañu waa F24 nappaaje nañu arrêté bi préfet bi waa F24 seen méga rassemblement bi ñu bëggoon amal tey jii ci ngoon ca place la nation rassemblement ba doo am bi bloqué na opposition bi terewul suur soi mi ngi ñu wax ci gaayam di wax ci yéene kaay bi na ñàkk respect ñàkk wegal ak gàtt xel weesuwul lu mat fukki bakkan ak juróom-benn rot ci réew mi ci manifestation yu fi bu yàggul nit ñi di ko jooy seeni ronkoñ ferewul nga ne da bëgg a woote ay rassemblement ak i mars tir bi nañu ndaw yi ko géré li ñu jàpp mooy waa F24 seen mooy bëgg yokk ci xarmi karaw bëgg a xambu taal bi ba ñu gisaat yeneen bakkan yu rot ci réew mi ñeneen ñu am lu leen jaaxal ci doxalinu F24 li li ñuy ñaawlu ko naqarlu nee nañu mooy fitna nit faatu fi lu bari yàqu ci te ba léegi ñoom waa F24 kenn déggu la wax ci ñi ci wax di ñoom Felwine Sarr Boris Diop ak Bougar coalition républicaine sàmm suñu réew ne ñooñi manees na leen a tuddee nu nekk ba mu des ay intellectuel ndax li ñuy wax ci mbir mi ak niñ ci doxalee ab intellectuel du ko def ñu def demi tour dellu ci l'observateur mi ngi ñuy nettali ndaje mi amoon démb ca palais de la république ci diggante président de la république bopp di médiation ci la bokk ba lu mel ne li xewoon ci réew mi bañ fi amati ca ndajama lise ko nee nañu kii di Abim Ndaw xam leen na fa ne li état bi ñàkk ci manifestation yi entreprise yi ñàkk ko ci manifestation yi ménage yi ñàkk ko ci manifestation yi jege na ñaari téeméeri milliards bu weesoo bakkan yi ci faatu bakkan yooyee ci faatu Vox Populi mi ngi ñuy wax ne waa Pastef wax nañu ne romb na fukki bakkan ak juróom-benn ñuy wax nee nañu ñi ñàkk yoo xam ne jotaguñ leen identifié li ñu ak ndakaaru nee nañu toll na ci juróomi téeméeri blessé ñoom waa Pastef it nee nañu gis nañu ci manifestation yi téeméeri manifestant yoo xam ne bal balaa la leen dóor ak juróom-ñetti manifestant yoo xam ne bal rey la leen dóor le téemuñu bind ne ci jamonoy xayma ak wàññi loraange yi tukkee ci manifestation yi ci foofee fa toll Amnesty International téemoñu nee nañu wax nañu ne ñi ñàkk seen bakkan ci manifestation yi ñu weesu toll nañu ci ñaar fukki doomi aadama ak ñett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 sénégal7.com Sénégal le roi de l'information en temps